nan bàyyi di tudd pël yi pël yi ñun dañoo am ay pël Fuuta am pëlu senegal dee leen di wax pëlu guinéen yi dee leen di wax pëlu guinéen yi ndax pëlu sénégalais yi ñu baax lan pëlu guinéen yi nag pëlu sénégalais yi leen di bubboo bàyyi dee leen di wax pëlu guinéen yi ay nderang yeeg pël Fuuta yooyu yëpp wóorul pëlu guinéen yi moo gën a clair pëlu sénégalais yi ñu baax lan bugguñu sax pëlu guinéen yi Guinée ñoo leen defar ba nu jëlee gaal gi di dem Espagne yegg mbuur danoo wàcc ndax danoo foog na ñoom yegg seen Espagne ba nu wàccee nag dañuy bëy yéeg jësit yéeg ah, dañuy xar yi lan xam ne ñu ngi doog ak Sénégal parce que Sénégal ni mu mel la ak rafet gi mu rafet pëlu Guinée yi ñoo leen defal léegi nag bu subaa ci li may jublu mooy agent de mairie yi nga xam ne ñoom ñooy jaay eh, numéro registre jàmmoor yi di ko jaay parce que mënoo nekk ci dëkk màggee ci dëkk bi juddoo ci dëkk bi sa doomu réew bu munta tukki munta dem di am problème mu këyit ndeke yow yaay sàcc ñu lay jox ay dix mille francs quinze mille francs nga koy jaay ay ndereng ay pëlu guinéen pour ñuy am këyit nan jël seeni mesure état bi kon gis nga yor passeport ñu nangu ndayam xool foo ko amee kan moo sa yaay sa yaay kan moo ko katt ndax Sénégal wala dara parce que ñoom ay guinéen lan di jënd këyit yi yaa ngi dégg guinéen bu ñu gis nga am kër jënd kër Sénégal kër boo fa ñëwee di géneyee dañ laa war a luyee kenn warul laa jaay bu gisee nga am kër dañuy katt ndayam récupérer kër gi jox la xaalis ba nga fa faree woon nga doxaan sa nday Guinée nan génnee seen nday Guinée yëpp ñu génn Sénégal dem dellu si Guinée pëlu sénégalais yi ak pëlu guinéen bu leen leen di jaawale pëlu sénégalais yi ñu baax lan ay pël yu am jom lan ñu am fulla lan di leen di wax pëlu guinéen yi loolu laa doon jotee ak tons parce que da ngeen di diaboliser di mélanger affaire yi déedéet pëlu Guinée yi dee leen ko wax te bàyyi pël pël boo nee pël pël rek yem fa day indi erreur bu bëri te loolu war naa mën a ñàkk pëlu Guinée yi nañ jël suñuy mesure dëgg seen ndey agent agent mairie yëpp dinaa leen wër taf leen par benn par benn kat seen ndey ñu récupéré euh, euh, document jàmmoor yi ni jaay ak numéro registre jàmmoor yi ni jaay di ko jox Guinée yi déedéet ba pare dama bëgg tamit à partir d'aujourd'hui benn Guinée bu ñu jiitee ci Sénégal réew mi ñoo ko moom ño dëkk ci réew mi gën leen a intelligent gën leen a jàng gën leen ëpp xam-xam gën leen a maturité yaa ngi dégg ñun ab jaaykatu koko wala mbuusu ndox ak dànq ak siddéem ak banaana bu nëb mënuñoo jiite bu leen nangu benn Guinéen di leen jiite di entreprise yi nekk nan toj seen data nday génne leen fa yéen ñëpp jeunesse su sénégalais bi toog fa di liggéey sénégalais yi jiite réew mi protéger réew mi nekk agent bi di gérer Sénégal benn Guinéen bu mu jiiteeti benn sénégalais dégg nan jël suñuy mesures état bi bu ci jógul ku jóg Guinée boo dajal tojal cottu ndayam bu dee banaana lay jaar wala wala wala koko ŋaayil tun gi nga rof ko fa dëgg ndayam ba Guinée tey jël naa samay mesures engagement yi maa koy jël man ak ñoom ba fee histoire bi du da ngeen xam ne dinañ dëgg seen nday bu baax